Pape Dama Ndiaye nga xam ne que moom ñu ko gën a ràññee ci lam yi nga xam ne que moom lay takk nekk artiste bu mag Sénégal yi xam waaw tey jii bon vraiment ngeen def lu rëy def journée boo xam ne que da ngeen ko déjee à Mbissane ginnaaw bi mu génnee àdduna ngeen defoon ñëpp pour ñaanal ko ñu bëggoon nga def benn témoignage moom waaw jërëjëf loolu lu may sawar la ndax yéen jàmboon ngeen ci mbir mi ñun dëkk lañu ci li ñuy wax ak Mbissane Mbissane dafa yore ñaar yi gën a foor li yàlla sàkk muy ñaar yu gën a foor muy doomu aadama am na ko ndax fonk na doomu aadama alxuraan yàlla moo ko génnee moo ko moomal boppam fonk na alxuraan fonk na nit fonk na alxuraan kon vraiment ki fonk nit fonk alxuraan deselutu deselul nit yi dara te àddina li gën a metti ci àddina dalul misaal génn na àdduna de mais li ko gën a metti li gën a metti si àddina dalu ko ndax àddina li ci gën a metti sa lu bon di dund sa lu baax di dee te mbisaan gàcc ngaalaama moom jërëjëf